ak ba mu commencé noonu si nañu wàññi ñu bëri seen liggéey sama doom ci la bokk vingt-sept ans la am boobu moo doon soutien famille bi moom daan dimbali moo ma daan dimbali wax dëgg yàlla ndax papaam dafa gaañu moo daan dimbali boobu ba léegi mi ngi toog liggéeyul defu dara. ah mag laa am na 68 ans kon il faut ma protéger sama bopp feebar bi moo tax ba ma déggee vaccin yi ñëw na ci laa dem def sama première ci laa def sama première doo sama carte baa ngi nii. man demaat deux fois foofu ñu ne dose bi deuxième dose yi ñëwagul ma dem ma leen jox leen sama numéro téléphone jox ma numéro téléphone bu mu deuxième dose bu mu ñëwee suñu ma woo ma dem def sama deuxième dose sama karta ngi nii. man kay esprit tranquille laa ci am comme que vacciné naa aar naa sama bopp évité naa samay déplacement yu bëri dematuma fen fenn dematuma ko fa ku ma seet sur de gisuma la dematuma fenn évité naa sama déplacement yu bëri dematuma fen kon aar naa sama bopp maa ngi aar samay njaboot conseil xale yeeg mag yeeg ndaw ñëpp ñu dem ñàkku ji respecté mesure barrière tey takk masque tey ñu daan dante tey bàyyi xew yi déplacement éviter déplacement yu bëri